gay fatma mi jité ko and ak seigne abo mbakke mom seigne fàllu mom seigne modou awa balla seigne ahmad salum jang euh, ñi nga and ak euh, sunu mbokk yu baxé seigne mohamed mbakke moom sëñ modou mahfous seigne ahmadou mbakke mom seigne cheikh na mom soxna momi ak mbokk yu bare bari ñi ngi jóge touba ci seigne bassirou mbakke mom seigne abdou khadir mi nga xamné mo yor kaddu yoon kaddu yoon murit euh, xam ngeen ne seigne bass bas mi ngi ko jëlé ci ndigam seigne muntaxa waye seigne bas moy ki nga xamné mo ci délégation bi ni mu ko baaxoo defee at mu jot suñ ñëwee euh, bokkook suñ mbokk yu baax yi nga xamante ni ñooy waa Tiwaawoon bokk ak ñoom bis bi ñuy waajal muy gàmm gi ànd ceeg ñoom nemmiku leen ci ñaanal leen ndokkeel leen ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm loolu moo waral kàddu yi euh, sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni tey mooy njiitul kër gi di kër si maam Sidi Hadj ci lañ ko tàmbalee dañ euh, ñëwee gis ngeen waxtaan nañu moom mu bëgg loolu yaatal ñu jàpp naa ne waxtaan nañ ñun sax lu benn waxtu waxtaan wu am solo woo xamante ni baax na loolu yéen média bi ngeen tasaare ko ndax lépp rek luy defar la luy boole nit ñi wane ne yëf yi fi amoon lépp rek benn la dara yàqawut fenn dëgg bu baax ak sëñ Babacar si ci kàddu ci suñ tànk yi ndax euh, li am solo rek mooy ñëpp bëgg lu baax bu ñu àggee ci jamono ji yàqu ba nga xam ne ñëpp it am na ñuy defar am na ñuy yàq waaye ñi nga xam ne ñooy kilifa yi moom nee na war nañoo yor gis gisu sëñ Bassirou Mbacké moom sëñ Abdoul Khadir mi ak gis-gisub kilifaam yi nga xamante ni ñoo fi nekk te sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké jiite ko ñaanal la sëñ Mountakha ñun tam ñaanal nañ ko bu baax a baax sëñ Babacar Sy Mansour mi mi ngi tëjee ay waxam nag ci lu am solo seetlu bu mu am ndax xam ngeen ne ki jiite suñ délégation bi mu sëñ Abdoulaye moom sëñ Cheikh Gaïndé Fatma jamono ñu toll nii ci ab dëj la nekk ndax waajuram jóge na fi ci lu yàggu dara ci ay fan yu néew su mënee bàyyi loolu lépp nag ñëw fekk bokk seeg ñoom mbir mi xam ngeen ne loolu rëy na lool moo tax mi ngi tëjee waxtaanam ci jaale ko ci loolu ñu bokk xam ne nag loolu li mu tegtale bari na lool xam ngeen ne waajur gis na te ku ne xam na ne xat na lool jamono ñu toll waaye li mu wax rek mooy comme bu fi waajuram woowu nekkoon dana ko sawarloo ci tànk yi moo tax mu ñëw tànk yi te nit du tàmbali def lu baax ba noppi di ko bàyyi loolu daal mooy li nga xam ne mooy kaddu yi jërë ngeen jëf ñu ngi sant baax man Mourtala Bousso laa tudd bokk ci délégation bi jógee Touba tey sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir yebal leen ci